mbirum ki nga xamante ni moo di Kunkande Kunkande nag moo fi taxawoon ne jouru tam xarit dafay xaat géej gi jouru tam xarit euh, bu ñu nee suba la tam xarit mu génnaat ne puus na ko ndax day bañ ñu jiiñ ko li nga xamante ni moo di trouble à l'ordre public naka nga jàngatee jëf jooju jëf jooju nga du ma ne jëf sax wax jooju nga xamante ni sëriñ Kunkande mu mag mi wax na ko waa xam nga ngeen euh, booy boobu parce que duma ko tuddee sax sëriñ parce que am na loo xamante ni du yëfi sëriñ fi booy la fi xale la parce que Koukandé man <clears throat> Amadou Amadou moom turu Thierno àggul ci moom déedéet parce que Thierno kilifa lañ koy wax bu ngeen déggee Thierno Thierno du tur maanaam pël yi Thierno sëriñ lañ doon wax baatu Thierno loolu moo indi Thierno mais Thierno doo ko gis ci kàddante nit muy vrai tur mais cerno sëriñ la ñuy wax cerno mooy waral cerno cerno yi ngeen di dégg cerno boo gis am na tur ba ca tege moom la ñuy wax sëriñ diw moo tax ñu naan cerno diw mais am moomu nga xam ne tey toog na ci devant la public devant l'écran di di manipuler sénégalais yi ci xelu xalem conseil rek laa koy jox mooy bu mu amati li tax mooy euh, nit bala ngaa mën a xar géej day fekk nga tegu woonu yow ci lu neex yàlla sunu borom ndax yonent yàlla Moussa ma xaroon géej ga dafa demoon xare ji dafa demoon xare ji dem ba ca géej ga xeetam ngaw di daw firaaw na topp leen ba amatuñu fun jaar loolu ci xare la ko yàlla maye mu jël bantam gu sell ga ubbee ko géej gi ci ndigalu suñu borom mais mënul def foo sécurité am bi mu yoroon di ko yor di ko armé woo briquet la mooy pistolet briquet kon kooku xam naa ko euh, mënul xëy nag tëb tey ne dafay ñëw pour doon benn sëriñ xam-xam nag ma day dabe waaye ñun xam nañ ku yor xam-xam ak kuy leere nit ñi ñoom xam nañ ku yor xam-xam ak kuy leere nit ñi taxaw na nag wax na lu ko neex euh, parce que bruit bi la doon ut te am na ko kontaan naa loolu nag ci préfet bu dakaar ndax fa bëggoon na njëkk rëccee li taxoon mu ne bu ko préfet joxul autorisation mu dem wakaam parce que gis nañ ci corona lañ nekk dañuy tere mobilisation te foo wootee xar géej àddina ñëpp dajaloo fa mu bëgg a waxloo préfet pour préfet ne loolu du fi nangu préfet ne ko autorisé naa la xaral géej gi mais par la suite lan moo mujjee feeñ dafa jël xaalis bu bari fay ko lebu wakaam yi pour ñëw saboter événement bi pour mu bañ am bi loolu bi loolu kalaatee ci la toog génn na événement bi dañ koy reporter mais lu ñuy reporter yow ki yow géej gi gën daraw la nee nañ la xaral looy reporter. non mënu fi def bruit gis nga soxna si Sénégal dafa neex te damay wax site internet yi. nañu nañu nañu nañu bàyyi façon façon boo yooyu di génn di man di wax lu leen neex ñu leen di filmer parce que dañoo dañoo mujjee dem ba dañoo yeb site yi léegi dañu ñëw dajale benn trois sites internet wax lu leen neex bëgg ku leen siiwal waat naa ci Cheikhul Khadim boo ko tegaloon mbuusu ndox mënu kaa xar gis nga luxus ak xam-xam duñ benn luxus ak xam-xam xaw ma ku ñuy nax ci yoonu sëriñ mais du man luxus ñu jox la kayit nga def mbir mu doon xaalis c'est différent c'est différent ak nit ku am xam-xam kon tubaab yi di def machi xanaa ñoom ay boromi xam-xam lan ñaata tubaab ñooy def machi ci dëkk bi bari nan xanaa kon xanaa kon ñoom ñu xar géej gi dem te bu ñu bëggee ñëw beneen pays dañuy uti visa lu leen teree naaw ñëw ñooñu ba ñuy machi euh, booy Amadou mi daa judd te ñooñu ku ci bëgg a wu dëgg ak dëgg avion ngay jël. lu leen tere naaw parce que du xam-xam luxus toog ci télé bi ñu jox la këyit nga def ko xaalis dafa sore xam-xam Ahmadul Xadim xam na ni bu ngeen ko tegaloon paanu ndox ba 2021 bi du jeex mënul sax yëngal ndox mi bay xar ba di ko xar. benn interview bu ñu seetaan moom nee def doon natt sénégalais yi waaye xam na ne senegale yi dañu nooy bopp mu mel ni ko tamit sénégalais yi dañu nooy bopp ba ku ñëw rek euh, euh, caméra yi tiim la comme ni nga ko waxee nga nax leen. waaw xam nga ñàkk respecté sénégalais yi mooy nga taxaw naan sénégalais yi ay golo lañ ay muus lañ amuñu xel déjà euh, moo lay wan ni manipuler na sénégalais ci lu ko neex utal nañ ko buzz ci ay waxam ba pare taxaw na xas leen dem na Côte d'Ivoire def fa lu wax lu ko neex mais euh, mooy li may wax rek euh, da doon saboté te benn saboteur bu mel ni Amadou moomu waruñu ko may benn succès sax. di jël caméra di ko tàllal parce que ñun Sénégal la ñu am sunu maam yi fi nekk liñ fi bàyyi kenn du ko salteel yaa dégg kenn xamul jullit la moom kenn xamul yéeféer la kenn xamul lim doon parce que bu dee jullit la dafa taxaw tey pour saboter lislaam parce que li fi yonent musaa def la taxaw pour saboter ko yow un jeune boo xamante ne yow yàgg nga dem ci boîte yi fanaan fa yàgg nga longo xale jigéen yi ba yàlla may la jàmm tey nga ne dangay ngay xar géej gi da nga ñëw pour saboote lislaam yonte yàlla musaa dañ ko mës a xam ci caaxaan yonte yàlla Moussa bu doon caaxaan kenn du ko topp kon nag nit mënta caaxaan carrière am ba mu ba toll fii ñëw tey changer déguisement takk say lanti diw ba yàlla may la jàmm sol say déguisement yoo xamante ne da nga am sa téer mu lay këppatil ngay sol ñu ne da ngay taxaw xar géej gi mais teg nañ ko émission tegal ko bidon ndox ne ko xaru ko lu tax xaru ko soxna si ñun leneen nga ñuy nax mais du xam-xam.